sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta alladi allamta luqmaan alxikam waliyahab bil mustafa xayra mbokk yi ñu seetaan fu ngeen mën a ne biir réew mi ak ci bitim réew ginnaaw biñ santee suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñaanal alxalifatul am cheikh muhammadul muntaxa yàlla na ko fi yàlla bàyyi noonu lañ koy ñaanalee kilifa diine yi ci réew mi yépp kenn ku ci nekk ñu ngi lay ñaanal wér ak wérle ak gudd fan ak xéewal ak barke tey jii nag ñu ngi ci émission bi nga xam ne moom lañ leen amal weer wu jot ànd kook boroom xam-xam muy sëriñ Maxtaar Kébem Cheikh Salif Mbacke mu jëm ci boole alxuraanul karim yi muy émission bu ama am solo yitteel lool waa daara yitteel ñuy jàngale alxuraan yitteel ñiy jàng ñuy jàng alxuraan waaye yitteel itam ñi nga xam ne jàng nañ ba noppi te a jaar ci daara muy lu raar a ndax yaakaar naa yi fi nga koy fekk ci plateforme yu yees yi bëriwul bu ñu ko amee nag gannaaw yàlla C3S mi nga xam ne mooy compagnie El Hadj Serigne Seck di ko ñaanal gudd fan ak wér ak Cheikh Mouhamadul Fadil Seck mi nga xam ne moo koy coordonné ak El Hadj Dame Touré suñu xarit bëgg mburu ñoom nga xam ne ñoo koy coordonné kon muy émission bu am am solo di nuyu émission bi nga xam ne moom la suñu xarit Serigne Mbacke Sourang di nga xam moo ngi koy animé ànd kook Serigne Makhtar Kébé muy yaru ak yare di émission boo xam ne ñi ngi soññ mboolem sëriñu daara yi ñu bàyyi ko xel ndax solo si mu am ndax point yi ñu fiy jàngat képp koo xam ne yaa ngi ci daara rek yitteel na la képp koo xam ne yaa ngi ci daara moo xam da ngay jàngale moo xam da ngay yare moo xam da ngay encadré ak noo nekkee ci daara rek émission bi yitteel na la ndax njëriñ yu bare bare bare moo ci nekk sëñ Maxtaar laataa ñuy dugg ci waxtaan dañ lay bàyyi nga nuyoo di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa rahmatullah sëriñ Omar Silla maa leen nuyu bu baax di la siyaare di nuyu waa C3S ka ca bopp ba di alaaji sëriñ Seck di ko nuyu bu baax di ko siyaare ak njabootam di nuyu sëriñ Fallou ak sëriñ Daam ni nga ko waxee léegi di nuyu personnel bépp ak fu ñu mën a nekk ci réew mi di nuyu alxalifatul am lil muridiya cheikh Mouhamadul Muntaqa ak njabootuk cheikhul xadim gépp waaye di nuyu waa daara waa daara nag suñ ko waxee mooy ña ko séqoon jàngkat baag jàngalekat baag kay jàngalu ak ka leen di jàppale kenn ka leen juróomeel nag mooy mooy ko deful ca yooyee dara te nag jéemu ko ci genn ak anam di nuyu sunu technicien sëñ Moustapha waaye di nuyu sëriñ Mbacke Sorong sama mbokkum daara bi nga xam ne ci kanam tuuti insha allah rabbi dinañ continuer waat ci yaru ak yare di la nuyu di la siyaare bu baax di nuyu bokki taalibe yépp jërëjëf sëriñ nuyu waa Kajoor suñu wëllëre ya fa nga xam ne émission bi dara du leen ci raw di nuyu waa Thiénaba Seck itam maa ngi leen nuyu bu baax dañuy yittewoo émission bi di ci di ko safoo di ko bëggee te mboolem numéro bu génn rek daanaka ñi lay njëkk wax envoyé ma ci lañ wax am na ci koo xam ne beneen bul xaar ma woo la émission mboolem saa bu génn rek dimbale ma nga mm-hmm. di gërëm mboolem li nga xam ne ñu ñuy topp sëñ Maxtaar tey suñu laaj bu njëkk jëm ci boole mm-hmm. di fàttali ñu ngi suñu numéro fukk ak juróom ci boole bi mooy fukkeelu numéro ak juróom mm-hmm. ñu war a jàll ci fukkeelu numéro ak juróom benn sëñ Makhtar tey suñu laaj bu njëkk ngi jëm ci maasu digoo maasu digoo lan la ci boole moom. maasu ñu ngi wa nuyuwaat mbokki daara bu baax te leen leen teewlu leen jël leen seeni xalima te jël seeni àlluwa jël seeni boole yéen ko moom. maasongu digoo juróom la mi ngi tàmbalee alayhima duxuloo mastoxfiru yépp nga njóogu jóg waxoon nañ ko ba tàyyi mooy maida illaa mattorirtum lan am minhu madkur nii mbargaan waxoon nañ ne mbargaan mooy yusufa mastu jiibaa nga suuree ba ci nekk rek digg bi dañ koy dañ koy maas mm-hmm. jërëjëf kon mm-hmm. kon loolu am na solo seen maxtaar ñaareelu laaj bi muy sidda jiital néeg baatu sidda jiital néeg yan boole ñëw sidda jiital néeg naayo naayo mooy ñeent lama faha lañ koy tënkee faha la ma faha boo ko wañee mooy ñeent la imba sopp ma nga njóogu mhm. maa farrattum mbargaan mhm. axattu namli ala maa farrattu sumar mhm. att boobu dañ koy maas ba noppi te mujj ga dañ koy sàdd nga xam ne wannewul wanne mooy nga ne masque gi ma waroon a maas dama ko toxal ca baat ba ca kanam mooy li ñuy wax wanne mooy idxaam ci euh, tajwid bii nag dafa idxaamul moom ndax la imba sotta att gi da koy maas ba noppi taag mujj ga da nga koy sàdd lañ doon xam nag mooy nga bañ a maas kon bu jëkk bi toxal ko mu wan na ko ca ba ca des gis nga mag ñi amoon nañ seen njàng nu bopp idxaam lañ tuddi woon wanne <laughs> wanne benn xaraf la waaw muy axattu ala ma farattu la in basatta yooyu yëpp da ngay boole maas ba noppi sàdd fee bu ñu la laajee lan mooy la bi kon ginnaaw da maas fee kay sàdd fii kon sàdd lu ko fi indi ñu ne déedéet yii baat moo ko nangu beneen baat bu mën a doon nag la ca jëkk ngay bañ a maas a maas ka néeg ngay dindi def ko muy ak sàdd ca la ca kanam ñu jàngee tajwid ci istilaax al luga al arabiyya mag ñi noonu lañ ko tarjama woon ci seen làkk bopp ba bépp baat ba wax ci tajwid sëñ Omar mu waxal la ko ci wolof mhm. na ko mag ñi tudde woon allahu akbar macha allah kooku xam naa da danañ ko utal émission spéciale incha allah ndax am na solo lool mhm. te ilmu tajwid ku ne xam ne dafa bokk ci alquran ndax moo ñëwandoo ngoog waaw jërëjëf sëñ Makhtar mhm. euh, beneen laaj bi muy jëm ci sa sadaqa shidda saddaqa sidda moom ban moo la ci ñëw. saddaqa sidda njeego. dafa am saddaqa yoo xam ne du sidda. fa man azlamu mimman kadaba ala llahi wa kadaba bi sidqi id jaahu kadaba ñaari kadaba jooju. jëfe naa jàngoon nañ ko ci sun yee ca ginnaaw. saddaqa dafa am lu mel noonu. laqad sadaqa allahu rasuluhu ruya bilxaq laqad sadaqa jooju saddawut. ñu ne nag saddaqa sidda njeego juróom-benn. fa man tasaddaqa njoogu mooy maa maaidati wa saddaqa al mursalina baam baam mooy saafa wa saddaqa bihi nga zumar fa as saddaqa nga munaafiquuna fala saddaqa wala salee nga qiyaama wa saddaqa bil xusna ca fajiri ca safara ca layli boog maa ngi jégglu wa saddaqa bil xusna ca layli saddaqa sidda njeego bu dul saddaqa yooyu nag sadaqa la duutu siddaati hmm. Hmm. macha allah mhm. mooy sadaxa sidda sadaxa yi nga xam ne day ànd ak sidda mhm. ak sadaxa yi nga xam ne moom du am sidda day bañ sidda jërëjëf Serigne Maxtaar ci leeral bu am solo boobu jëm ci sadaxa sidda ñu beneen laaj bi mooy aha bañ maw ni maw ni mooy liif gu rëy maanaam liif gi mhm. du am bopp jëmmi maw ni moom wala wala pulaar pulaar la waaw maw ni mu ne aha gi alif gi kenn du ko dijjal boppam maanaam du am ak tikkint ca kaw du am ak xamza ca kaw lay war ne xamza la waaw loolu dañ koy dindi ki li ñu bëgg a lim nii yëpp aha bu ci nekk amul maw ni su amee maw ni nag mooy liif ga dañ koy wutal bopp su ko amul nag yett yett bam dal boppam dal mu toj <laughs> ok bañ maw ni tamaana mooy juróom-ñett wala tattabi ahwaahum ahwaahum googu kenn dootu ko réerati yett la nag yaar njoogu jenn suuraa ñetti wala tattabi ahwaahum am wala tattabi ahwaa a yaar la lan xaam ak jaasiya wa in tuti xakk saran wa in sara nga xam ne doo ko doo ko doo ko doo ko réyal ma nga lan am wattabaa dabaarahuma nga hijri wa daxaseehuma nga laxsaab bu ci nekk alif googu ci kanam danga koy taxañ gis nga loolu taxañ la ko mag ñi tudde taxañ <laughs> doo fa jaar di ko tudd wattabaa ahwaahum loolu moom mooy baatu taxañ ci ci boole. Euh, yitte ju la. Mm-hmm. ndax euh, fexe ba mm-hmm. li ñëw. te mm-hmm. ñëw sa langue. bi ñëwee nga fexe ba xool noo koy mandargalee ci sa langue bu ko gis xam ko. loolu xam-xam la. loolu xam-xam la. jërëjëf sëñ ci topp jorngeel siin su waaw la. mboccooree safaanam di siin su tooy wax nañ ko ba tàyyi ci jataay yi. jorngeel dara ya un dafa bari ya un fukk ak benn. xalaama asarroo nga njoogu wa asarru nadaamata yaar la yunus ak saba in wa asarruhu bidaatan ak fa asarraha yépp a nga mbargaan mbargaan mooy yuusufa man asarra xaw la ma nga rax di wa asarru waa yaar la mboore na lën bi tomb laaya tëxi mboore lën bi nag mooy kenn du ko fa laaya mooy mbóore tomb laaya nag mooy da fay taxaw laaya ko door a jàll wa ita sarra nga tahrim wa asirru qawlakum nga mulki sirran kulluhum mooy siin googu daa waw te la ci tege dafay sadd fukk ak benn la googu daa waw dafay sadd beneen laaj bi mi ngi jëm ci ahar ak ahar bu ak ahar waaye ñoom ginnaaw ba maxaarij bi dafa leen di jare mm-hmm. nañ génnee ñaar yëpp mu ne kon aha gumaalo samaana juróom-ñett la aha ula i naayo la aha la aha ula i naayo naayo mooy ñeent ñi ngi koy tënkee lala ma i la la ma i la jëkk yi mooy allazina yaar njóogoog laxraaf man na laahu lan am iyaakuma nga saba i ahada alladi yaar la lan beeg furxaan ahakada arsu kee nga nam li ahana nii ca fajiri aha bañ kii aha maw ni bu ci nekk rek aha la sëñ Mata bi ci topp sëñ Maxtaar bi ngay jëm ca ree riija nekk na reeja nekk mu ci alxuraan gis nga mag ñi dañoo yeewu reeja neex na mooy ree la mooy ree waaw ma ak baatam ree rek waaye nag dañoo bokkul fuñ tàmbalee beneen bi ñu ne bëñ bu réewul ñaaw bëñ bu réewul ñaaw ni ki baatam xasaa dañuy bañ nga def fa bëñ boo xam ne amu fa njariñ boo defee ñett yi rek gaawal wàccee yana rek yi boo fa indee bëñ bëñ boobu soxla wuñ mu ree te bu réewul ñaaw ñu ne nag ree ja neex na ñett ree bii na laan boo na ree njóogu bii na ree nga xëj mu mu ne ree ja neex na yett na ree bii na laan buu na ree njóogu mooy maida bii na ree nga xaj bii na rey nga xaj ji mm-hmm. jëm ca boole boobu ñuy wax rey ja nekk mm-hmm. sëñ Maxtaar beneen laaj bi ci topp mooy siddi sidda deel siddi sidda deel kooku wan boole ci ñëw siddi sidda deel njeego njeego mooy juróom benn mooy siddi bi deel gi ci siddi bi dañ koy sadd mu ne siddi sidda deel njeego as siddiqiina jigéen siddiqatun njoogu as-siddiqu mbargaan muy yuusufa siddiqan yaar la yépp a nga mareem as-siddiquuna nga xajji kooku du jam-jam foo ko fekk saat gi del gi ci tege dañ koy sàdd jërëjëf ci laaj bu solo boobu muy siddi sidda teel hmm. beneen laaj bi nga xam ne moom la tëjee mooy anfusahum lewru anfusahum lewru wan mooy masque ak lonk an fu su te bañ a nekk an fu sa bu doon ci problème grammaire la koy def fu su moom dana nekk mubtada mbaa muy xabar mhm. mbaa muy lisimi inna mbaa muy xabari kaana ila mhm. axirihi mhm. déedéet anfusuhum ak anfusahum ñoom dañ koo andil aw boole rek mu leer ñu ne anfusuhum léewru sàpp sàpp mooy fukk ak a guddub tënk mu ne xabi mawawa xafi shuawa xat ahammathum galaay bi ma laa taxawee njoogu watas xaqa yaar yépp nga baraam baraan xaleyhima nga baraan fii mashtahata nga lën bi shuhadaa wa illaa illaa ju illaa anfusuhum la mhm. waaye dafa ne shuhadaa wa illaa ma nga nuur wasayqanat haa nga naxli mhm. anaamuhum ca sujjuud bu ci nekk rek anfusuma ca tege sëñ Maxtaar leeral yi am na solo lool jëm ci booy alxuraanul karim damay wax ne képp koo xam ne yaa ngi ci daara boole amaana li ngay jàng alxuraan jàngaale woo ko boole woolu ñaari muy boole ak jàngum alxuraan bi ndax man ñi niñ a jàngee mooy fu ñu jàpp ci alxuraan rek boole wu ci digg dañ dafa jàngalaale nga xam ne ni ngay mokkale saar bu ngay mokkale boole waaye jàpp naa ne kuy suivre émission yi loolu toon ci boole yu baree baree bari mën ko rabaatal di ñaanal Serigne Makhtar mi nga xam ne moom lañ ci àndaloon rek yàlla barkeel ko te yokk xam-xamam euh, may ko wér may ko sutura may ko kàttan ba liggéey bi nga xam ne mi ngi koy amal dimbali ko ci alxuraan karim mu ko mën di gërëm itam suñu ci émission bu am solo boobu muy yar ak nga xam ne am na ko sëñ Makhtar daa xam ne yëkkati ci jotaay bi yéen kàddu yi ngay ngay jëlee jotaay xam naa marchandise la moom alxuraan boole yi ca biir bokk ca marchandise ma sooy jënd dara nag te bëgg pièce ba complété dangay fexe ba boole ñaari matière ya soo ko defee doo jëndiwaat piyes ba ñaare kon jàngalekati alxuraan yi ginnaaw moosul métier te mënuñoo am meneen métier te métier mu ne am na ay technique yuñ cay dolli ci bépp métier nag plomberie ni meloon électrique yépp mi ngi am ay avancement ca ña koy jàng ak ña koy jàngale kon alxuraan bu demee ba mag ñi ixaata ko def ko benn collecture boo xam ne kenn mënu caa dolliwaat dara waaye lépp daa mat daa mel ne alxuraan bi yàlla ne daa mat leneen luñ cay def day mat fi ne kenn mënut a waat ay boole yu bees mën nga ko naqalu nag mën nga ko jëlee ci langue bi yóbbu ko ci làng bee mën nga ko jëlee ci diis gi yóbbu ko ci ak woyof mais bi diit baat bi fi mu nekkoon fi lay nekk ba tey kon léegi ñun lu ñu ca war mokkal ko. di ko jox lente fexe ba alxuraan jii di waw ci anam nga ko mag ñi daan jànge ak di ko ne jàngalee en tant que nag ñun ñooy seeni ndono te gis naa ne mbër yi sax bu seen bàyyi daan bëri bu ñuy bëri leen di jege sil leen sa bàyyi daan bëri ba nga jeg ba nga daaneel sa bàyyi ñëw yëkkati la ne la nii laa daan def kon doomi soxna yi war nañoo fexe ba ñoom itam ñu naan nii laa daan def xam naa benn shaa'ir adabi waxoon na ci ne bi jiddi laa bi jaddi kullu majdi fa hal jaddun bila jiddin bi mujdi fa kam abdin yaquumu maqaama xorrin wa kam xorrin yaquumu maqaama abdi asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Maxtaar muy wéy lu am solo di dellu rek ci yitte doomu aadama ak ak ak fullaam ak faydaam xam ne nit li ñuy tuddee sharaful xasab dafa am solo ak sharaful nasab xasab bi nag mooy li nga xam ne yaa ko fàggul sa bopp xasab bi nag mooy fi la yàlla boole nga bokk fa waaye xasab bi am na solo lool ndax nit fa muy àggale boppam ñaari fayda ak fulla la koy àggale sëñ Maxtaar ñu ngi lay gërëm di la sant di ñaan émission yàlla ñu ko yàgg def te lépp luñ ci dégg yàlla ñu ko jëriñoo in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu rahmaani rahim الأقلم وما